ñu ne endemic corruption mu ngi ci sa government ndax yow yëg nga am ne corruption mu sa dëkka ci sa government su fekkee ne corruption am na sa biir government yan jéego ngay jël parce que government bi euh, dafa am ñetti bànqaas executive bi judiciary bi ak legislature bi yow nag président Barrow yow you are the executive waaye am na ñeneen ñoo am ne tamit ñu ngi dimbale sa nguur bi part of the arms of government mooy judiciary bi. waaw xam nga lii yëpp si affaire yi eh, audit reports yi. audit reports si nag eh, opinion la joxe. Hmm. warta em si opinion rek nga def conclusion. auditeur bi si bopp mun naa make mistake auditeur bi mun naa bias lool yëpp mun naa am su amee tam foog ñun ñu seet ñu def suñ internal investigation mu ngi mel ni health. waa ji ñu ngi ko yóbbu police police yaa ngi investigate nda am nañ case ñu build up a case ñu ne sa case bi balaa moo dëgër sa court bi case balaa moo dëgër foog nga évi am évidence yu dëgër loolu tax banja dañ set upon inquiries ñu inquire ñu conclure ne war nañu mën a dem court yóbbu nañ ko court banja tëj nañ ko banja si permanent secretary yu ma bëggal bokk because xam naa ne jàngkat la te man gom naa ne mun na liggéeyam waaye despite all that buñ demee ba find out ne foog naa ne am nañ évidence yoo xam ne wane na ne corruption mu si ñu ne comme nekk ne nañ dem si code bi ñu dem si code bi code bi tëj ko waaye nag pour proof sa case beyond any reasonable doubt nekkul lu yomba de waaw kon opinion la opinion yooyu tam si yu nga xam ne place yu ñu ko joxee yooyu yëpp ñu ngi koo gestu pour def ay investigation ndax dinañ mën a build case ndax somebody we should take responsibility yooyu yëpp di di dinañ ko def si yii am na lu nga xam ne National Assembly am nañ si ay opinion opinion yooyu fu mu nekk nii loolu la ñoo gaada pour def inquiry xam daa daa du dëgg la du dëgg su nekkee taxawut tam ñu xam ne taxawut waa ñu dañu war a gom ne ñun yëpp ñoo bokk réew mi te opinion warta dis warta tax nga sentence nit ki death sentence loolu du mun am foog nga yóbbu borom am si ay fu nga xam ne dañoo gestu ñu gestu ñu dem feneen fu nga xam ne fu mu xanaa nekkee benn nga mun a stabiliser loolu ba nga mun a eh, technique wala wala mu firi otherwise am na ku nga xam ne yóbbu nañ ko code bu ñu demee si code bi mooy Gambia Petroleum mm-hmm. ñun dañ foogoon ne am nañ kees eh, bu strop ñu yóbbu ko ñun ñëpp ñu dem foofu ñu dem foofu eh, code bi sànni ko si biti ndax loolu nguur gi la. <laughs> soo lii la man suma taxawaay si loolu because eh, mboolem ku nga xam ne yaa ngi nekk si government bi su nekkee jiiñ nañ danga da nga corruption te ñu am si case against you ne la ko loolu mu amul ba ñaari wax duñ compromise loolu because ñun gis nañ ne loolu rek mooy njëriñ suñu réew mi loolu mooy suuf suñu réew mi kanam man projet yu ma soxla si réew mi dafa bari lu ma bugg defal nit ñi su nekkee ñeneen ñi su ma nekkee ñooñu ñu ngi yàq foofu kon du ma mën def projet yooyu ndax loolu interest si président la loolu du mën a nekk sama interest te loolu taxuma ñëw